Vito Cocktail, une explosion de saveur dans une même et seule bouteille fruits yep yëpp ñu ko Sénégal si anam yu sell te naturel jus Vito pour sen goûter doom collation ci bureau ba ngenté manam bépp xew jus orange ngir may len cawarte ak tonus jus corossol amna bax lol lool si yaram ak ay ferñeenteem yu am solo gingembre bi mom dafa bax lol si góor ak ay vertu bax lol itam si organisme buy bi nak day wañi toy bax si yaram tayit yi len sawarlo jus bisaab bi oh, oh dina yok sen katan bolé ci vitamine rek la ñi bëgg naturel nak Vito sont excellent pour fête bon monti doon te bar lol si ya gune ak mag si emballage civilisé tour à ak jus Vito da choix Vito jus et saut existe en bouteille de 1,5 litre et 33 centilitres Vito jus fabriqué par Groupe Cefas à Dakar à la cité cœur Damel à côté de la mosquée téléphone 77 241 06 06 si mango livre ah. day daw amul arrêt day daw rek waaw mooy livre day daw amul arrêt waxal waxal ah. livre day daw amul arrêt ñanko ah. livre day daw amul arrêt waa waa ñanko yow fa nga nekkoon di ko démb ba léegi gisuma la Police ñu ja sàmbati bi démb policier yi yi yi yimbali <laughs> ñànku depuis démb ba léegi gisuma la maa ngi ne yor livraison jàmm maa mujj dem ni doxal sama bopp di ko yóbbu. faa xëyoon dem ba dañu koo jàpp dem moo ba soo gaa yàpp ko jàpp ko yóbbu ko ma xëyoon tey dem dem dem foofa. police yëmbal yi ñoo ko jàpp. waaw am na ñu ma fa xam loolu du problème. ñoo ko lijjanti bu dee police yi ñoo ko jàpp dama doon yóbbu livraison bi moom mbaasin te nag naka te ñànku jox naa la fi livraison bu jëm kër moom mbaasin si daal di saw nee na jotu ci de ana boobu. ma ma mbaase yi ma dem foofu dama leel leel leel waaw. leel. waaw wallaahi. yow xam nga kër Mombaas te yor nga contact am. loolu def ba léegi foofu foofu dafa jaxasoo. foofu si këli ñoo di ma leel. këli ñoo niroo mais numéro bi nga yor niroo wu. <laughs> numéro Mombaas niroo yor nga numéro téléphone am. léegi maa moom ma ko wax moo ne ma jotu ci. ma mel woon na sax de. <laughs> Ah, ah jotu ci de. ñaa ngi da may sama jus di ko doxaane. mais de ne ne sama jus di ko neexalee. ñaa ngi ma ne cee ma cee sax wala. xam nga dafa bëgg jinjeer bi. moom laa ko yóbbu. moom nga ko yóbbu so dama loolu mujj di dex ku dem jël. ba ba ba ma na ci jot de. ba ma yóbbu loolu. bu yoon moom bu ci jotul. boo ñëwee ñu dee déedéet waaw. moto bi nag. dinaa woote léegi si police yëmbal incha allah. daa am problème. am na ku ma fa xam. waaw mu léegi demal but fee. ca ca jiwu. ok man Baasi moom daa de ma koy dama koy yóbbu léegi. na ci jot ca jiwu. na ci jot moom Baasi dafa bëgg. vidéo bi de waaye ah, dama koy yóbbu dama koy yóbbu. dama koy yóbbu man Baasi. ah man de ñànku man kan ngay jox man livraison yi bu may bëgg a jaaxal man. kalaa kaa jox ko ñaa ko say biir bi mooy bëgg a jaaxal. Eh, bu kii waay bu dëgg bu dëgg ñi ñu waay boo nee bu dëgg ñi. <laughs> Eh, daa leen déglu lu neex. ba bu leen déglu ba yaa. yow gars yi sos dañuy sos dañuy lekk dañuy loole. waaw ba nga ñëw yàlla. damay sama moto bi jomaa nag war naa war naa wax ci moto yi ñuy yi dëgg yaa gars yi nag. loolu mata yi ñun ñëpp yële ñu yële ñu yële ñu permis mata yële amuñ asilam duñ takk casque bañ koy jàpp da na laaj na lee ñoo nag wax ñoo mën a ute ay ay ay ay tuuse ñu ay casque may ñu sax ute ñu ay permis moto ñu ñoo asilam sa la ñuy jënd mën a dewa naes ñu ma policier diñ jotee dara ah! day daw amul arrêt day rek mooy livreur day daw amul arrêt jox naa ko ko jox naa ko ko sànq bi ma ko ko joxee nag ci laa ni ko nala ko envoyé man mënatuma cee gérer leneen loolu sa diggante yow ak moom la am na loo xamante ni man mënuma ci dara ndax sa problème la non bu ma dugal ci problème yooyu quand même voilà non si si anday bi ah ok yaa ngi noonu la demee quoi c'est ça attends attends capo nangu naa school dama dama daw lu danga de maay day daw lek day daw amul ale amul ale fii ma maay daw lek amul ale lu waral lool si te insa laa ba fii si te insa daw daw nii ah dama doon yóbbu livraison livraison ana livraison dox sama moto dañ kaa jàpp dem ci ngoon kan moo jàpp sa moto police yi lu waral maintenant ah, damay damay li à lifile ba ba ñëw di heure ndogu. di taw nii la waaj cik cik de bi mu de sama ma pour ah, ma damaa def clim ça assuré ma posé sa kaw. ñu ne kala kala akal def ni ko kaka me def ni kat mu ne kii kooku comme góor comme góor ba bi. Euh, ami mi waaye moo je rek <laughs> yaa comprendre. mais aspect def yow ba sax. taw sama mu de meexa yelmepel mene sesesexa sesexa semse meexa yomox ma asian meexa yomox mene tako kas wàccel in dëxalo ndi karaj affaire mu nekk waa sama caabi mujj caabi da ngaa yebaate dangaa yebaate beneen bi ci topp mooy man mii sax erreur laa defoon ndax def erreur bi ma def moo waraloon ma yéeg ci sa moto ci moto bu amul benn papier boo defoon soog ñu ànd ñu yóbbu ñu. ma ak prison fu ma jëm. dimbali dimbali maa sag de non non si. dimbali maa sag parce que yow amoo këyit. amoo carte grise amoo assurance takkoo casque munoo dawal xëy di nga. mënu mënu maa dawal. waaw yi feebar ma yëngu non munoo dawal. parce que yow yow ak sayeer yi na yem yaag sayeer ak yaag aas am naa am naa sama benn grand bu nekk fii aas Ndiaye buy dawal day diri tànk yi ba dal yëpp a jeex tàkk tuul du waay mën na maa ñëw dimbali ci moto moto bi moom vraiment mënu ma la cee dimbali parce que su ma demee lan laay to so demee nga nga nga le nga le nga le nga wax lan laa leen wax lan. dama dem naan kii da nga jàpp ma doon da kii nee dama sàcc sama tamit nga yow nga dem di ko jëli. <laughs> boo gën a dañ lay jàpp ñuus la ba nga regle pare na ma ah, yow mii dama wuti kay ba pare dañ naa mën sàcc laa sax. Mhm. léegi lu may defar. maam yow yaa wéeru. wax leen wéli mais xamoo ni wéeroo. mais ñoom ñoom ñoom ñoom wax leen wéli ma. non su ma leen waxee wéeroo sax dinañ xam ni yow wéeroo waaye da ngay dof-doflu ndax sa dof gii naanoo ko da nga koo sa yére yi nga war a dindi te sol yére nit non si dama lay wax dëgg man sama xarit nga du ma la jay du la wax loo munut dañu waxante dëgg. Eh, Jomaay kay moo ñu war a yi léegi. munul ci yow dara. yow yow Jomaay mën nañu dimbali ñu am ay permis moto yu yu yomb. yaa ngi dégg ñu tuuse ñu ñu tuuse ñuti ñu ñuti ñu ñu tuuse ñu ay ay ay casque. yow Jomaay xam nga lu mu mën ci yow. yóbbu la rafetlu ni mbaaw bee. ñu fexe laa faj. la fa. waa Pastef bay la ñoo xam mbaaw. Pastef kan moo fay dox. <laughs> mais benn waay moo fa xawoon a mel ni kuy a dof nii te doful Bakary Sagna. mais Cheikh Cheikh Bara. Cheikh Cheikh Bara maa la doful. mën na leen ñoom ñaar ñooy li may yóbbu li ma jumaa di yóbbu mu yóbbu. non non Mara eh, Ndiaye a moo téye réew mi de. waaw Fala day daal day jéggi dafa. moo fal moo ko Cheikh Bara. Cheikh Bara Cheikh si ko si ko Ba Bara Dolly jàppee dina lépp dëgg la. Cheikh Bara daa faaye Bara Dolly. Bara Dolly Cheikh Bara lay roy xaaral ma dem sax man fa ma doon jëm.